député yi ak askan wi ñu bëri di xaar li nga xamante ne moo di la déclaration politique euh, du politique général du premier ministre ba léegi amul euh, waaye yow yi gis nañ leen ñu génn récemment teg ay argument di défendre ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko nga nekk député de cette quatorzième législature témoin de cette situation yow ban lecture nga am ci li nga xamante ni moo di déclaration politique générale bi Ousmane Sonko war a def. waaw yow askan wi wax loolu lan wax teguñu ko ko fenn ci ay caaxaan kese lañ ko def. parce que mënoon nangu règlement intérieur assemblée nationale ñaari at nga liggéey si ñaari at yëpp waxuloo woon dara néeg ba nga xamante déclasse pour général war naa am nga taxaw di layal ki nga xamante ni mooy premier ministre ngir bañ mu ñëw assemblée nationale loolu teguñu ko kenn déclasse pour général da ngay sukkandiku ci constitution bi constitution moo ëpp doole règlement intérieur assemblée nationale constant bi wax na la mu wax si cinquante 54 te 55 nee na premier ministre obligation lu si moom mu ñëw déclenche pour cinq rangs. c'est obligatoire c'est bu ko règlement bi bindee bu ko règlement bind yooyu amul solo li am solo mooy constat bind na ko. Mhm. na respecté constat bi. Mhm. jaar fi ay nawlem jaar. te ci loolu la Amadou Ba defee déclaration. yeewi askan woowu noonu. Mhm. ci jamonoy Amadou Ba. Amadou Ba ci règlement intérieur bi yi la ñëwee assemblée nationale ci la ko yeewi askan wi Birame Souleye Diop dugaloon motion de censure pour daane ko. léegi lan mooy ndey ñoom ñu defoon lee daaw bëgg def lii. pour naqasal xalu askan wi loolu yëpp sénégalais mënu ko passé. est-ce que pare nañu justement pour def euh, cette déclaration parce que déclaration bi tey euh, bu taxawee ci assemblée nationale hmm, euh, wax li nga xamante ni moo di feuille de route su leen convaincre yéen député yi am ngeen pour dugal motion de censure est-ce que daytu du loolu la ñuy ragal gis nga Ousmane Sonko ci boppam moo war a jël ay responsable wax ak sénégalais yi xool fi muy teg tànk parce que yëf yi nag mi ngi bëgg a bari yu bari yu muy def dafay bëgg a bari lu ci communication yeeg encadrement yeeg amul ay conseils yu baax. moom Ousmane Sonko. oui parce que boo amoon ay conseils tey lii ñuy def duñ ko def ñaara am yow fal nan la conseil bi nee na da nga war def déclaration pour général. Mhm. joxu la délai. Mhm. yow nee nga woon boo dootoo réew mi ñaari weer da nga defar réew mi def nga ñetti weer ñëwal jàkkaarloog sénégale yi 17 millions personnes yi nga xam ñoo fi yeewoo nga ne leen kat fii ak juróomi at bëgg naa yóbbu réew mi fii boo leen waxee loolu ba noppi. assemblée nationale ña fa nekk nga xamante ni yow ba may naqari ñoo la doon xas di génn di la ba ak di xeex yow xot say kosim tey boo jàkkale yoon ndam la si yow parce que tey yàlla yëkkati na seen kanam wax leen fi nga jëm mhm. bu ñu paree ñoom ñooy dee dugal motion de censure mhm. nga bàyyi la ñu dugal ko buñ la daanee gouvernement bi bu suba gaar ki nga xamante mooy président daal bu amee seen confiance mu nami waat la mhm. te kenn deetu am sañ-sañu daane waat la lii mooy àddina lii mooy dëgg ku ko wax ak ku ko waxul da ngaa naafiq mm. Ousmane Sonko dafa war ñu Assemblée nationale def li nga xam mooy déclaration pour Seereer am nañu ñun ña nga fa pour war ko jàppale défendre ko. Mhm. am na ñeneen mais ñun na sukkandiku ci li nga xam mooy doole askan bi ko teg. Mhm. mais bu ci xalaat bu ma ñëwee lii dana am am fii non koy conseillé ma mooy dama ko wax. Mhm. wax naa ko ko mooy bu la kenn dugal ci nga def lu gën a yées ñi nga remplacer li nga fi def ñëwal nga def sa déclaration pour Seereer loo si jëlee baax na. loolu laa ko wax. bu ko defee baax na bu ko deful sama fu. wala xaawul nee na bu ko deful je m'en askan wi lay jàngantoon daf ñu doon nii moom bu xoolaatee boppam xam ni situation bii jamono yu ñu toll nii li muy def ay erreur Sénégalais yi di ko wax bari na ba ci bu mujj bi yeewee askan wi def nii barki démb. Mhm. def foyer de presse. Mhm. di lalal Ousmane Sonko ngir mbéy ñu Assemblée nationale te règlement intérieur boobu noonu nekkoon fi ñoom ñu liggéey si ñaari at. Mhm. samp fi ay bureau tey jii rek maa ngi koy wax. ci commission bu ñu doon def tey assemblée nationale. Mhm. ma ne leen léegi règlement intérieur bi assemblée nationale baaxul yow Ayib Daffé yow yaa jiitu commission délégation bi nga xamante ni man membre laa si yow yaa wax ni règlement bi baaxul yow yaa war a dem président groupe parlementaire ñu war a fal Ismaïla jàll mu toog remplacer la. Mhm. règlement baaxul règlement baaxul nan lañ si falee ab commission président commission dañ ko règlement baaxul. Mhm. alors. mu ne ma non waxuma ne règlement baax na dama ne règlement intérieur assemblée nationale baax na. waaye document bii ñu yor baaxul loolu la wax.